di kontaan seen ñëw bi di kontaan nag ci seen ñëw bi. Euh, occasion bi. ne occasion bi. li mu may li mu ko may. mooy buuba nduur mii. mooy buuba nduur mii. xamuma xamu ko. barewuñu jotaay ndegam jotaay ndegam jotaay ba mës naa am. waaye dama leen di topp di leen seetaan. waaye nag dafa leen di topp yéen di leen seetaan. ay birimaak ay birimaak. ku xees ki Charles dama leen di daf leen di seetaan di leen déglu di leen déglu wax naa ko fi wax na ko fi ba tey wax ja dana bare wax ja dana bare léeg-léeg léeg-léeg birima nangu wax ji birima nangu wax ji ñu ni ko doo ko jël ñu ni ko doo ko jël coow la bari coow la bari wax naa leen ni leen wax na leen ni leen buuba nduur danay génne ay idée danay génne ay idée am jariñ lool am njëriñ lool. waaye du ko développé waaye du ko daf ko war nak di développer né ndax mom daf leen di top dé bo bokké ci réew. bo bokké ci réew. mënuloo fekkee lépp. mënuloo fekkee lépp. waaye lo ci mëna a fekkee. lo ci mëna a fekkee. ko fekkee ko. ndax bu wax jotee. ndax bu wax jotee. nga xam ci la ngay wax. nga xam ci la ngay wax. loolu amna na. loolu am na. buuba. buuba. ñu ngi leen di gërëm. di leen sant. so leen so soo nga wax jakarlo nga wax jàkkaarloo. jàkkaarloo jàkkaarloo. ni ñuy dégloonte. nee nga wax leen ko. ñariñ lu bari ngeen di genn né ñariñ lu bari ngeen di génne. way liko masqué. way liko masqué. moy ñak a ga. lu bari ngi genn lu bari ngi genn ci yéen. ñu man ko jariño ñu man ko jariño ne boo demee nag waxal gars yi bu ñuy waxtaan bu kenn dee wax nañ ko déglu ba mu sotal keneen soogaa tontu waaye man damay wax du ma noppi man man loo ma noppi loo e déglu ma yooyu bari na fa moom ne turu birima nag siiw na fa turu birima siiw na fa